point de presse bii nag li tax ñu gën ko woote mooy c'est un moment de célébration de la victoire de l'état de droit sur l'anarchie c'est un moment de célébration de la victoire de l'ordre sur le chaos mais c'est un moment de célébration de la vérité sur le mensonge ndax yéen ñëpp gis ngeen ni jamono yi yëpp am na ñoo xam ne danoo taxaw tëcc pour indi fitna indi pëccëxoo indi insurection ci Sénégal waaye sénégalais yi comprendre nañ ni njaboot jàmm mooy gën ci moom président de la république bi nga xam ni mooy ndey mbili jël disposition yëpp pour assurer sunu sécurité te li fi xew démb mooy dafa amoon ñu bëggoon jóg taal réew mi waaye ci taxawaayu état dañoo dellu gannaaw dañoo sàqi ni ko mbëri di waxe waaye jeunes yi ne dañoo jënd glace jënd glace bi nag dégg naa ñu naan dañ leen a ñaan kilifa diine yi ñoo leen ñaan ak ma xam nga moom mbër bu daanoo foog mu wax li ko daaneel wut alibi kenn ñaanu leen kenn ñaanu leen danoo sàqi danoo daw comme des lâches c'est ça la vérité kilifa diine yi ñuy wax ñoo leen ñaan ñoom respecté wuñu kilifa diine yi ñoom ñooy saaga di saagalu kilifa diine yi fii ci Sénégal respecté wuñu kilifa diine yi respecté wuñu imaam yi te ñëpp xam nañ ni ñi di saaga kilifa diine yi di wax lu bon ci kilifa diine yi ñoom ñooñu la ñu àndal donc buñ ñu wax mukk kilifa diine yi ñoo leen ñaan ndax ñoom déggaluwuñu kilifa diine yi faalewuñu kilifa diine yi lijjantiwuñu diine ñoom seen projet bu antoo kilifa diine dootul am Sénégal ci loolu la liggéey donc buñ ñu wax mukk ni kilifa diine yi ñoo leen ñaan dafa am lu ñu ragal moo tax ñu dellu ginnaaw te xam ni bu ñu génnoon démb dinañ xam ni si góor a koy bay président de la république loolu dañ ko ci ndokkeel ndax la mu waxoon def na ko moom dafa ne woon li xewoon mois de mars dootul xewati Sénégal te élection yi dana am te moom dootu ci waxaat moom bu waxee ren balaa muy wax di déwén waxam bariwul li ñuy wax naan bu jëf ji bëree moom la waaye bu wax ji bëreedu moom li mu leen waxoon moom am na mooy du fi amati gannaaw ndam loolu nga xamante ni démocratie am na ko état de droit am na ko dëgg am na ko ci kaw mensonge dégg naa benn waa joo xam ne mu ngi naan confrontation dina am et c'est pas à l'état de déterminer le moment et comment damay wax rek ne ko ñun confrontation taxu ñoo jóg ñun dañu jóg pour liggéeyal Sénégalais yi ñun suñu yittee suñu yittee du xeex suñu yittee du taal dëkk bi ñun liggéey Sénégal moo ñu tax a jóg ñu ànd koog président de la République Macky Sall waaye nag képp koo xamante ni confrontation nga bëgg ci taal réew mi bilaay di ko am te di fi fekk lu dëgër ndax état bi du yàqoo ci Macky Sall président de la République damay faral di wax ni président Abdou Diouf ci moom laay tàmbale ñun ñëpp d'accord nañ ci ne moom toogam fii ci Sénégal liggéeyam fii ci Sénégal li ci ëpp du woon tabax ay infrastructure du woon tabax ay defar ay autoroute du woon tabax ay immeuble waaye liggéeyam ci li ci ëpp mooy li ëpp solo ci am réew mooy defar un état fort te def na ko dañ ko ci delloo njukkal di ko ci gërëm di ko ci sant ndax Sénégal yëpp amel nañ ko njukkal